tàggat ñiy liggéey euh, ci bërëbu liggéeykaay lool nag luy yokk koom la ak tam luy gën a defar dëkk la dañ leen di jàppale ci seeni projet loolu nag 3FPT fas na see yéene dugal koppar bu takku ngir jàppale liggéeykat yi ndax loolu nag dafa bokk ci politique euh, économique bu gouvernement bu Sénégal loolu dafay tax nag euh, bërëbu liggéeykaay yi di gën a jongante waaye tamit seen liggéey di gën a yokku benn concept bu bees la bu ñu jël euh, depuis le début de l'année pour gën a jege suñu cible bi suñu cible yi nga xamante ni ñooy entreprise yi ak organisation professionnelle yi gën leen jege pour lan pour leur permettre ñu gën a comprendre tey jii ñu naka la ñuy doxalee naka la ñuy financer seen plan de formation yi naka lañ leen di gën a mun a jàppalee. ñi liggéey ci bërëbu liggéeyukaay yi yokk seen mën-mën ak seen xam-xam loolu nag 3 pt dina ci taxaw dina génne koppar gu am solo ngir jox ko borom bërëbu liggéeyukaay yi ngir nag ñu gën a tàggat daal seen personnel. ñun ci wàllu Radisson gagné nañu ay plusieurs reprises ay offres de formation ak waa 3FPT te loolu daf ñu permettre ñu renforcer suñu personnel ci connaissance ci compétence ci capacité ci seen liggéey. ndaje yi nag 3FPT moo koy def ak entreprise yi loolu nag dina génne ay waxtaan waaye tamit ay jàppalante mu nekk ànd ak lëkkaloo goo xamante ne ni dina yokk koom-koomu réew mi ndaje bi nag ñi koy waxtaane waaye tamit ñi ci tàggat ñiy liggéeyee ci bërëbu liggéeyukaay yi nga xamante ne ni dañoo lëkkaloo ak 3FPT ñoom nag ay conseil nañ waaye tamit ay expert ñoo xamante ne ni seen xam-xam màcc na lool ci li nga xamante ni moo di tàggat ñuy liggéey ci bërëbu liggéeykaay yi.